salaatu wa salaam ala seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi diin ginnaaw bi nu santee sunu borom mi nga xam ni moo nu may ñu fekkewaat jotaay wi ñu ngi ñaan mu may nañu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim daane la kook alhamdulilahi rabbil alamin julli ci sunu sang sunu yaakaar tey ak ëllëg ñaan sunu borom mu dolli ay leeram taas nu ci barkeem di nuyu tey ziyaara mboolem xalifa yi nekk ci réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara nuyu waa kër gi yëpp jiital ci président Youssou nduur ak rakkam yi nga xamante ni nii ñoo koy jàppale ci liggéey bi Ndiaga ak booba ñëpp ñu ngi leen di nuyu ziar leen bu baax Cheikh Imam ñu ngi lay nuyu di la ziar seen émission waa du jóg ci di ànd ak yéen ci tontu seen i laaj Cheikh Imam ñu ngi lay nuyu di la ziar. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokki téléspectateurs yëpp di ñu seetaan fii ci TFM. di jiital ci néew bi borom kër gi Youssou di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla dolli tawfeex ak taysiir bu ko defee rek ñu bàyyi la nga ñëw ci question yi incha allahu rabbi imam euh, mbokk mi laaj wi nga xam ne moom lay laaj mu ni ndax su liir génnee àddina dañ ko war a jullee walla déet jërëjëf liir bu dee dafa juddu te jooyut sawut muy tuur ndox dañuy jàpp ne juddewul bakkan boo demee ci xalil loolu la wax bu juddewul bakkan nag duñ ko jullee duñ ko sang bu dee loolu la cee am bu dee nag liir bi moom ba mu juddoo jooy na di la sax dundaatul waaye jooy na rek mu wér na ki juddoo na bakkan boobaa danañ ko sang danañ ko jullee li ñuy defee julli ñëpp lañuy lañ koy defal kon boo demee ci xàll mi ngi ne wa xusi la dammoo wa wuriya mooy liir boo xam ne dafa judd te jooyut dañuy jàppee ne juddoo bakkan dañ koy sunnoo rek boo demee ci xàll wala sixt moom la fu xaaw di tuddee sixtu mooy ku juddu te jooyut ndax ñu ne bu juddoo bakkan rek maanaam dana jooy donte dafa yëngatu sax bu jooy amee wala tuur ndox am dañuy jàpp ne juddoo na bakkaar loolu nag bu génnee àddina danañ ko sang danañ ko jullee li ñuy defal niw yëpp ñu defal bu dee juddoo bakkaar nag dañ koy raxas rek lëmas ko bu ko defee ñu suul ko wante xalil mu ne sib nañ ñu koy suul ci kër yi kon daal liir ñaari xaaj la liir bu génn àddina jooy dañuy jàpp ne bakkan la juddoo danañ ko jullee sangu ko bu dee jooy amu ci nag maanaam dañuy jàpp ne juddoo bakkan kon duñ ko sang duñ ko jullee loolu moom ne ci muxtasar bu Cheikh Xalil ne wala Cheikhta wa xusila dammuhu wa wuriya Xalil looloo. Hmm. jërëjëf maam ci tontu bi nga xam ni tontu nga ko laaj wi. Hmm. laaj wi ci topp. Hmm. mbokk mi moom euh, dafay laaj pour ñu leeralal ko suratu duha xam naa nag. li nga xamante ni weer wi ci la alxuraan wàcc. Mhm. moo tax mhm. ñu bari ci seeni laaj dañuy fekk si dañuy ñëw ci alxuraan. ngir ngëneel gi nga xamante ne am na ko ci weer wi moo tax lépp ci laaj yi ñoom it dañuy daal di jëm ci alxuraan di fa jaarale seeni laaj muy laaj rek pour ñu leeral ko li nga xam ni mooy suratu duha. jëf maanaam li ci aju yëpp dana yaatu ndax firi alxuraan dafa gudd waaye dañuy wax rek yàlla dafa wax ne da wax ne. wadduha maa ngi gëñ ci yoor yoor wallayli ak guddi isaa sajaa ndem lëndëm na yàlla dafay gëñ yàlla gëñoon na ci wal fajari na maa ngi gëñ ci xaruk fajar yàlla gëñoon na ne wasam maa ngi gëñ ci jant bi yàlla gëñ na ci wallayli maa ngi gëñ ci guddi ji dafa gëñ ci waxtu yoor yoor daf ne wadduha maa ngi gëñ ci yoor yoor wallayli ak guddi isaa sajaa ndem muur na lëndëmam lan la yàlla di gëñ yàlla mu ne maa wadduha ka bàyyiwul la rabb ko sa borom yow yonent bi xalaata merewul la lu waral loolu mu indi aay boobu yonent bi sallallahu alayhi wa dañoo ñëw laaj ko ñetti laaj xurey si ñoo ñëwoon yow di ñoo leen waxoon ne dama leen laaj Muhammad bi ngeen ko laajee ñetti laaj bu tontu yépp xam ne du yonent bu tontu dara ngeen xam ne kii du yonent bu tontoo ñaari bàyyi benn bi nag ngeen xam ne yonent la ba ñëwee nag laaj ko asaabul kax fi xale yooyu nga xam ne dañoo demoon di nelaw alxuraan nettali nañu ko lan mooy seen solo yonent ne bu subaa ma wax leen ko lan mooy ruuxu yonent ne bu subaa ma wax leen ko buur boobu nga xam ne sul xarnay ni daf ñenn ñi ne dafa dundoon ñaari seekal ñi ne dafa amoon béjjën lan mooy soloom yonent ne bu subaa ma wax leen ko ustaas yonent ba mu waxee loolu ba mu xëyee xamul lu muy tontu ndax dafa fàtte wax incha allah lu man ñeent fukki fan ci ulamaawu siira am na ñu bind lool am na nañu wax lu ko ëpp am nañu wax ne matu ko am na ñu wax lu ko ëpp wax yu gi ñëwul léegi nag ba jibril ñëwee di wàccee ci moom wax yu ci la yàlla wàcce saaru Wadduha yàlla ne ko gëñ naa ci yooyoor ak guddi ne ko man yàlla bàyyiwuma la te merewuma la ndax yonentu demoon na ba foog ne boromam daf koo bàyyi wala da koo mere mooy maa bu koo maa xalaat mu ngi noonu yàlla ne ko walal aaxiratu alaaxira xayrun moo gën laka ñeel la minal ulaa ci àddina bi yow sax yow Muhammad àddina bi ñu topp di la laaj question yi nii alaaxira moo gën ci yow àddina bi te gis nga ba yàlla di ñëw xamal na ko waxal na ko ñaari question yi répondre na ko wax na ne innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan asaabul kahfi yonent bi nettali na seen histoire ni mu demee yëpp xam naa danañ ci mës a ñëw xale yooyu nga xam ne dañoo nelawoon ñetti téeméeri at sul xar nay ni itam mu ne ko benn buur la woon boo xam ne dafa dund ñaari seekal di ko gudd fan muy sul xar nay di ñu ko doon wax borom ñaari bijjën yi ñenn ñi ne borom ñaari seekal yi bokk na ci buur yi nga xam ne dañoo moomoon àddina àddina yëpp oustaz ñii ñoo ko mas a moom te bokkuñ ko kenn ñeenti ñi la comme ni Macky élifee Sénégal nga xam ne ñoom dañoo élifoon addina yëpp yonent yàlla Souleymane mas naa moom addina yëpp bokk koo kenn Zulqarnayni mii moo so moomoon na addina yëpp bokk koo kenn ku mel ni Namrud moomoon na addina ak Buxtu Nasar ñaar ñi jullit la ñaar ñi dufuñ jullit léegi nag yàlla di ko li yàlla nag nettali ko ne ko wax ko Zulqarnayni xisaam wax ko asaabu kax fi ruuxu nag mu ne ko xuli ruuxu min amri rabbi xamoo ci dara kon ñaari tontu na ko bàyyi benn bi waaye dafa yéex a ñëw répondre bi dafa yéex a ñëw léegi yàlla mu ne wa duhaa maa ngi génn ci yoor yoor wal layli ak guddi isaa sa jaane mbuur na la ndëmam maa waddaaka bàyyiwul la rabbuka sa borom wa maa xalaata merewul la yàlla mu ne yonent bi wala aaxiratu alaaxira xayrun moo gën laka ñeel la minal ulaa ci àddina bi ndax yiw yi fa yi dafa yàlla dëxal moo ëpp foofu lu mel ni kaw kawsara foofu la ko yàlla di jox yonent bi lu mel ni safaatul kubra foofu la ko yàlla di jox yonent bi kon pay alaaxira moo ëpp ci moom pay àddina ne ko wala saw fa yuxtika xel si na laa jox rek bu ko sa borom fatardaa ba nga gërëm yàlla ne ko danaa la jox ba nga gërëm yonent mu ne xeetam bi kenn bu ci duggee aljana euh, safar rek moom gërëmul kon bu bis pencee bi lu mu bëgg yàlla daf ko koy jox comme ni mu ko bëggee may gi ci gën a mag nag mooy safaratul kubra léegi nag borom bi ne ko bu ma la waxee loolu war nga koo gëm ndax fi ma jaar ak yow yàlla ne ko alam yëjjit ka ndax fekkuma la yetti mën ngay jirim fa awaama wëtt la ah yonent ba muy gën a àddina papaam Abdoulaye génn àddina bañ ko ëmbee ñii ne juróomi weer ñi eh, ne ci ci juróom benn weer ba ñi ne ci juróomeel bi weer ba xaamu sittin aw xamsatin alakat umun na eh, kii eh, ci ci ci ci maanaam ba ko yaayam ëmbee ba am ñaari weer maanaam ba ko yaayam ëmbee ba am ñaari weer ci la papaam Abdoulaye génn àddina ci siira dafa am ute bu ci am waaye li gën a siiw mooy ñaari weer ba mu dundee nag moom yonent bi ba am juróom benn at wala juróomi at ci la yaayam génn àddina kon yàlla ne ko alam yi jikko yetti man fa awa fekk naa la nga nekk jirim man yàlla mu wëttu la woo jëde ko daal lan fa adda yàlla ne ko fekk naa la yow yonent bi xamoo charia ma xamal la charia doo ko ko firee réer yonent réerul luy jàng njëkk alxuraan yàlla waxoon na ko ne ko wala taqatoo bi yaminika isan lartaa mutu loola oustaz yonentu mënutoon a jàng njëkk alxuraan di wàcc moo tax yàlla ne ko wajjade ko daalan fa daa fekkoon naa la xamoo charia ma xamal la charia ñenn ñi ne daalan fa addaa yonent bi ba mu nekkee ndaw dafa réeroon dafa àndoon a xale yi rek dem réer ñu koy seet ba sonn gisuñ ko benn waaye moo Abdul Mutalib ne ko ci garab ak sàngam fa la Muhammad nekk ñu dem fekk ko foofu jël ko andi ko ñu ne mooy daalan fa addaa wajadaka aylan fa axnaa yàlla mu ne fekk naa la yonent bi nga ñàkk ma koomal la koomal gi nag ñu ne mooy sareetu gi ko yàlla jox wala xolam bi nga xam ne yàlla dox na fa imaan boo xam ne yonent bi doy la ne soxlawul dara lu dul yàlla rek Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soxlawu ko wa jëlaka aayilan fa axma fa axnaa wala ñu ne déedéet koomal gi mooy yàlla boole gi mu ko boole Xadija ndax Xadija mi yonentu takk ci jamono bu doon jamono léegi milliardaire la moo ëppoon ci màkk alal te ba takki alalam yëpp daf koo bàyyi kon lii yëpp wax nañ fa koomal ga waaye li gën a siw mooy charia gi ko yàlla jox ak doylu gi nga xam ne yonentu lu dul yàlla rek ittalu ko yàlla rek ko itteel léegi nag yàlla di dem ci saar ba muy jeexal mu ne fa amal yettima wala taxaar yàlla mu ne jirim daal bu ko not toppatoo jirim lu baax la ustaas yonentu wax na ne annaa wa kaafil li yataama haka saafil janna yonentu mu ne moo yarkati jirim nii la ñuy mel ci àjjana mu juñu ñaari baaraam wa ama saayila falaa tanhar mu ne ku ñëw di yalwaan di sàkku ndimbal bu ko jànni bu ko gëdd nanga ko dimbale boo ko mënta dimbale alxuraan ne xawlun maxruufun wa maxfiratun xayru min sadaqati yet boo asan na nga ko wax ju neex ne ko li fi nekkoon joxe ko mu dam wante bu ko jànni wa am wa ama saa'ila falaa tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis yàlla mu ne xiwal gi la sa borom jox na ko waxtaane bu la yàlla joxee xiwal danga da nga koy waxtaane tahaddusu bi ni'matillah minallaahi sukran wa tarkuha kufran man de bëggoon naa nangam yàlla jox ma ko nga waxtaanee ko ci nit ñi loolu lu am solo la di waxtaanee xiwal waaye foo toll aw ma dara yàlla joxuma dara xaw ma nangam nangam fa toll di kebetu loolu baaxul la in sakartum la asidanakum wala in kafartum inaa bi la sa yàlla mu ne bu ngeen santee rek ma doon dolli leen bu ngeen weddee nag sama mbugalu tar la kon ci tënk rek lii mooy saar Wadduha waaye maam jërëjëf ci tontu bi nga xam ni tontu nga ko laaj yi muy loo xamante lu am solo la mm-hmm. fekk na ni it li nu cëraloon ci waxtu mu dam nu looy tàggoo ñi nga xam ne ñu ngi la doon bàyyi xel jërëjëf ñu ngi nuyu ñëpp rek ñu ñu doon seetaan ñëpp di leen ñaanal yàlla ñi si TFM yëpp yàlla na yàlla def tawfeex ak taysir ak suñu sponsor yu baax yi ànd ñun ci émission bi yal na yàlla yombal lépp di nuyu suñu caméraman suñu réalisateur Maaw Cissé yal na ko yàlla doon di tawfeex ak tey si di nuyu ñu ànd ci liggéey bi yëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf maam ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd wi nga xam ni tànn ngeen ko di ko ànd ak ñun seen émission fatwa hmm. ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan sunu borom mu may na nañu dajawaat suba ci waxtu wi incha allahu rabbi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu